lislaamaa ngi jooy jugleen daalal ko lislaamaa ngi suux jugleen suuxat ko lislaamaa ngi ni yàllay sabuur doo sàkku ngaramam yooneen sa soppe loolu li muy wund moom mooy ñu ngi jàng alxuraan waaye bëgg nañoo gën a xam lu leen gën a ñaax pour ñu jàng a du ñoom kese waaye ñi ñu invité tamit ñu jàng waaye ci jariñu ci ni nga xam ne noonu lañ ko bëgg a doxalee dañuy tàmbali léegi jox oustaz Alioune yaakaar naa jëriñ ñu koy présenté ndax ñëpp xam nañ ko su waxee xam nañ ko bu toogee xam nañ ko kon dañ def rek lu may nuyu ko tatagal ko ñaan yàlla mu fecc làmmiñam ba mu mën a wax lu raw li mu daan wax nit ñi di ko dégg te yàlla mosoo ko ci cet Euh, bu ko defee dinañ tàmbali bu tàkkusaan jotee ñu dem julli yi buñ ñëwaatee doo ko yëgali programme bi ak li nga xam ne ni noonu lañu ko bëgg a doxalee ci gan yi fi ñëw waaye bala tàmbali rek dafa am ay kilifa yoo xam ne ay wëllëre lañ ci Mbàkke la di ay nitu diine yoo xam ne ñu xam nañ ci réew mi ak ci bitim réew waaye yàlla def na kenn moo jot aguma teew muy Cheikh Fadilou Ka moom mu jógee ba Guet Ardo kilifa diine la foofu bu mag dañu waxoon rek ñu barkeeloo ko jox ko mu ñaanal ñu su ko defee ñu doo ko jox oustaz mu tàmbali jotaay bi wax bismillah yéen ñëpp bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa nabiyina muhammad ibn abdullah man yahdi llahu fala mudilla lahu man yudlil fala hadiya lah wa nashhadu an la ilaha illa allah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi oustaz Alioune Sall mi nga xam ne mooy magu jataay bi li ñuy wax rek mooy bu mag teewee rek daanaka moo war a jiite moo war a mujje kon oustaz Alioune Sall bu ñuy def ñaan itam ci ndigalam la ñuy def rek ñu def istighfar ñetti yoon ñu julli ci salaatu ala nabi benn yoon ñu daldi di tijji jataay bi bisimilah.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 muy benn euh, message boo xam ne ni yàlla mi nga xam ne moo gën ci buur yi moo ko yónnee xeet wi gën ci xeet yi muy xeet Seydina Muhammad joxoon ko yonent bi gën ci yonent yi muy Seydina Muhammad yónnee woon ko malaaka bi gën ci yonent malaaka muy Jibril loolu yëpp pour mu def ñu ñu ñi nekk ñi gën ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla mos a bind euh, danañuy wax nag ku président yónnee woon benn lettre bala ngaa nelaw da nga jéem a xam lan moo ci nekk segam yàlla mooy président président yi nag di yi buur yi bind ab yooyu yónnee ko ab xeet kon nit ku nekk nga ngaa jéem a ba xam nag ci biir message boobu loolu moom lañu Oustaz Alioune Sall bëgg a indil te dara nekkul ci lu muy yàlla wan ñu ne yéen ñi yéene ay nit lan moom la alxuraan mën a def ci beneen bi nag moom mooy sunu mag bi Oustaz Mouhamed Lamine Darame yaakaar naa xam ngeen boobu ci 2STV moom lañ jagleeloon pour mu war a def modération bi ci li nga xam ne ni moom mooy jotaay bi mais yàlla dafa defoon mu yeexoo na ñëw ah, ndax ay ngànt ñu doon ko wutuwaale kon su ngeen ma gisaatu ci alhamdulillah wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajmain mbokki jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu di jéggalu mbokk yi yépp di jiital si jégalu bi sunu sëriñ Cheikh Aliou parce que ñoo fi waroon a jiitu tey dañ fi dajeewaat comme niñ ko defee woon daaw ñaan yàlla fekkee ren yal nañ yàlla may ñu fekkee waat déwén te at mu jot rek di gën di rafet di gën di jëm ci kanam euh, daara ji nga xam ne mooy Al mhm. dafa mel ni tur wi wuy na borom tey dëgg la xëy na euh, dox bi yàggul waaye tur wi yegg na fu nekk ci àddina bi loolu nag gannaaw yàlla mu ngi ko jaarale ci sëriñ Mbàkke Silla alxaaji Mbàkke daaw dama ne xëy na bi mu juddoo léegi yàggul waaye tur wi daj na àddina loolu li ko waral nag mooy taxawaay bu am solo boo xam ne sëriñ alxaaji Mbàkke la am na ko ak soxna yi nga xam ne ñoom la àndal ci liggéey bi daaw biñ fi jógee ñëpp kontaan conférence bi nga xam ne cheikh al oustaz Alioune Sall def na ko fi ñu bari ñu ñëwuñu woon fii sax dañ koo rëcc woon biñ ko seetaanee ñu ñaanoon yàlla dajewaat fi ren yàlla nangu ñaan bi tey dajewaat nañ fi comme ni ko imaam alxasan waxee léegi nga xam ne daanaka mënoon naa continuer présider jotaay bi parce que lim si man sax ñun mënuñu ko ci euh, thème bi sunu sëriñ ñun ñëpp war a waxtaanee mooy importance su alquran ci dundu jullit ñi thème boobu thème bu rëy la te ñëw na ci waxtum ñu ñaan yàlla nag sunu sëriñ bi di oustaz Alioune Sall yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla bàyyi ko fi lu baree bari muy jëriñ jullit ñi euh, damay wax ne bu fekkoon ne ci formation formé wul kenn ku dul Mbàkke Sylla rek ñu ne doy na sëkk waaw bu fekkoon dundam yépp Mbàkke dong la formé ak li muy sant Sylla yépp doy loolu rek doy na xam nga forme yëpp sa ku sant Cissé ku sant Sakho ku sant Silla ñoo ñoo gën a naqaree formé ci àddina <laughs> waaye alhamdulilah réussir na ko ba tey Mbàkke moom di formé yeneen nit ay góor a ki jigéen Cheikh Ali am nañu ko fi yàlla bàyyil ba naal yi nga xam ne naanal na ko lislaam yépp mu dema dema dema dema dem ba mu gis njëriñ li yëpp mu gis firwi bi mu gis meññet mi ci dundam loolu yomb na yàlla yal na ko yàlla def man bi si Lamine Niass génnee àddina ba léegi sama sëriñ si yëpp dama leen di ñaanal gudd fan parce que dama ne foofu daanaka bu fekkoon dagan na dañ naan yàlla dañoo bett ndax fooguñu ko woon boobu ba léegi nag man damay ñaan yàlla sunu sëriñ si yal na leen fi yàlla bàyyi de ko ñaan de gis nga ñii nii yàlla nañ dund téeméeri at te bu ñu màggat parce que ñoom seen dund bokk na si liy tiital seytaan bokk na li koy déranger ñi nekk ci kaw suuf kon Cheikh Ali yan na yàlla guddal fan wi ñun loolu lañ lay ñaanal waaw loolu daal moom ñun ñëpp nañ ko bokk di ko ko ñaanal parce que bu du guddee fan rek réew mi dina gën a jëriñu diine ji dina gën a jëriñu incha allah kon tey jii jotaay bi ni ngeen ko xamee Alaaji Mbàkke la moom ñépp a ko moom ku nekk dangay foog ne Mbàkke sa Mbàkkeem bopp la moo tax jotaay bi tey kilifa diine yëpp a ngi fi ku fi teewul ku ne rek am nga ku la fi teewal Mbàkke moo mel noonu murid yi foog nañ ne ñoo ko moom ibaadu yi foog nañ ne ñoo ko moom tijaan yi foog nañ ne ñoo ko moom daanaka mën ngaa wax ne yoon wi oustaz Alioune Sall jaar rek foofu la jaar waaw ñoom milkun lil umma lañu milkun lil muslimin moo tax tey ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp teew nañu fi xëy na du ñu mën a tudd ñëpp waaye incha allah bu nu jullee rek balaa oustaz tàmbali waxtaan wi incha allah dinañ ci tànn ñenn tudd leen parce que seen teewaay dafa rëy ci ñun lool su ko defee ñu jox oustaz Alioune Sall mu dugg ci conférence bi su paree euh, kilifa yi nga xam ne teew nañu fi incha allah daañu leen jox kàddu ñoom it ñu wane seen yëg-yëg ci bés bi wane seen mbégte ci oustaz Mbacké Sylla kon programme bi noonu lay tëddee ñu ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix ñaan yàlla mu jox ñu si lu kowe suñu njort comme nañu ko daan defalee incha allah oustaz Mbacke si la yal na ko yàlla fay Mbacke nit ku baax la nit ku yiw la nit ku bëgg alquran la nit ku bëgg lislaam la nit ku bëgg jullit ñi la ku yor ay jikko yu baax la bi nekk ci yow yépp tey gis nañ ko ci Mbacke si la te fu mu dem ku ko gis rek sa xel dina dem ci oustaz Alioune Sall wax dëgg yàlla ñun moom mënuñu laa roy waaye moom mu ngi lay roy waaw man moom yàlla damaa nag sama sëriñ si leen roy waaye Mbàkke moom tabaarak gis nga sax sikkiñam bi daa niroog sa bos xam naa sa bos daa weex bosam xaw xaw ñuul te bu defee ay at dina weex ah, ah te li ma jaaxal sikkim bi fan yi dafa rafet de sikkim bi melul woon nii <laughs> donc loolu la oustaz kon dañ lay bàyyi rek nga nuyoo boo nuyoo dalal ndongo yi ak njaboot yi

doo sàkku ngaramam yonen sa soppe